alhamdulilahi rabil alamin wa salillahuma ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu san sapi Mouhamed Dabakh Cissokho andil nañ leen lu bees fii ci Kër Ndanane TV te mooy lan yéen waa kër Seydina Muhammad alayhi salaam yéen ñu ko bëgg a tàgg baa woy ko te bëgg ko jaarale ci clip ba ñëw leen fii ci Kër Ndanane TV daañu la ko defal ni nga ko bëggeeg fa ko bëggeeg nam la neexee incha allahu taala fii lay xewee numéro yaa noonu ci suuf bu ngeen ci wootee incha allahu taala daañu la ko defal ni nga ko bëggee fii ci Kër Ndanane TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.